maa ngi tudd madame la maire Mati Samb dëkk Kër Maam El Hadj te bourse de sécurité familial bi ñu doon jox jigéen ñi ñii am ñii amuñu te Kër Maam El Hadj ñëpp a yelloo bourse de sécurité familial ñii am ñii amuñu loolu naqari ko amul fu mu ko jooytoo mu ni lii de bu ma ko mënta saafari dinaa seet kan moo ma ciy dimbali su ñuy amul bourse it am ñi am bourse ñi amul bourse jéem a am ay financement wala ñu jéem a am ku leen jàppale. mu xar tànku tubéyam ci loolu di dugg di génn ba yàlla wanale ko gor baax si toog di social ñu duñ ko woowee turam de social lañ koy woowee ndax yow li ñu jot a dégg ci yow yow yaay social kon nag sos monsieur social ñoo ngi lay nuyu ñoo ngi lay ziar ñoo ngi lay dalal fii ci sa ëttu maam kër maam El jigéenu kër maam El Hadj ngi nii nga jàkkaar lool duñu wor duñu dellu gannaaw ay gaynde piir lañu te jigéenu kër maam alaaji nag kuñ ni yow la yaw la waaye balaa ñu laan naan yow la nag yaay prouvé lii ñu lay wax nii lii ñu lay wax nii du lu ñu waaj sax ndax ñun suñu problème kenn ku ci nekk ci ñun mën ngaa toog wax ko mooy lii sama xarit bii wax léegi di sama doom nday bëgg nañu ko jàppale suñu ay doom ci seen njàng ndax suñu loxo jotul suñu ginnaaw te suñu ay borom kër ñun genn wàll gi yépp toog jàppuñu ci dara te loolu it ñoo ngi la koy jooytu suñu ay borom kër ay xale lañu ay jàmbaar lañu jàppuñu ci dara su fekkente ni nag mën nga leen a jàppale dénk nañ la loolu yàlla jàppale la ci nga wut foo ñu leen tegal su fekkente ni mën nga ñoo jàppale suñu njàng doom dëgg la waaye carnet de santé yi dëgg la ndax ku wérul wérle doo mën a liggéey te carnet de santé yi kat dinañu dimbali ci wér gi yaram te xam nga ci dara ñoo ngi lay dénkaat carnet de santé yi waaye nag lépp lépp dafa tënkuwaat ci li nga wax ci consultation bi suñu hôpital bu bees bii soxla nañ ay garab ak ay médicaments ndax dañuy doog a ubbi te amuñu doole ñu bëgg bu fekkente ni am nga ay médicaments itam nga dimbali ñu ci may ñu ay médicaments loo ñu may xeebuñu na ñëw rek loo ñu may xeebuñu ñoo ngi lay dénk loolu. école kër maam Alaaji bii nga xam ne moom la ñu am mooy suñu symbole fii ci kër maam Alaaji ñu koy bàkkoo di kon jaayoo dénk nañ la ko loo ci man nga def naam am na ko mënoon di def dolli rek la. loo man nga dimbali ñu ci bu dee ordinateur xale yi ñuy jànge baax na bu dee leneen lu xale yi yittewoo it nga xool ni baax na photocopieuse baax na lépp lépp lu xale war a jànkoonteel daal ñoo ngi la koy dénk ci kàttanu yàlla ak mbaaxam yàlla mottali ko te yàlla mën na ko yàlla na ko mottali te gëm nañu kat li nga def Casamance def ko feneen ak feneen ñu di ko dégg ngay social ñu di ko dégg yaakaar naa ni yow loolu bu ñu la ko jooytoo ñun suñu xel dal na ci loolu. bi ko yaay bi waxee ne ko da ngay bàyyi ba gis président ñëw ñu wan ko incha allah yaakaar ko gisee yàlla dina ci def gis nga yaram bi ñu ngi ñu génn ci naa ko ne na ko préparé ba indi ko ñëwee. ñu jàngatul deful dara jàngatul gannaaw loolu ñu ngi dalal sunu gan gu tedd gi di Serigne Habib eh, kontaan nañ tam ci jigéen ñi bu baax bi mu ñëwee tey présenté ma ko ne ma ab ma ne ko kii kay xam naa ko kii kii euh, sama doom la sama xarit la sama lépp la ñu ñëw foofu ci sa bureau waaw ba ñu fa ñëwee dañ doon wax soxla ah keroog tam faj nga suñu soxla waaw yàlla xam na ko ñaareel ba maa ngi ko gis ci bi mu organiser fii consultation gratuite bi mu doon def ci école Clémenceau yéex naa xaw a ñëw sax mais jox nañ ma micro bi ne ma waxal euh, ma wax ca keroog wax naa ca wane Boubacar it xaw ma noonu ne mooy gan gi waaw kon kon ñu gën a ko gën koo préparer bu baax a baax ndax xam nañ ko bu baax ndax gan gu mel nii ku ko am danga koy teeru teral ko puisque kii nit la koo xam ne gu ku am rentabilité la euh, nitu nitu valeur la nitu valeur la kon ku ko am te sa gan war nga ko jàpp te Boubacar dafay nit koo xamee ne lépp loo xam ne njariñ la dana ko xëcc indi ko fii ci koñ kon nag moom it na nga am confiance ci moom bu baax xam ne li muy wut nii wutalu ko boppam euh, maa ngi nuyu ñi fi teew yëpp di jiitale nuyu bi euh, sama xarit sama sëriñ sama imam sëñ Asan maa lay ziar baax di sama tuwaay euh, bi mu jógee foofu maa ngi nuyu aussi Chérif di la jox sa wàccuwaay di nuyu tamit sëñ Boubacar di nuyu notable bi fi teew yëpp maa ngi leen di leen ziar yaakaar naa kër gi duma fi gan ñëwoon naa fi xam naa kër gi imaam sama xarit la yàlla def na sax man maa waroon ñëw jëw na ba seet si ma ziyaara ma ma kontaan si loolu li may wax rek mooy balaa may tàmbali euh, ñun yàlla daf ñu natt ñu doon ay doomu Cees dëkk si dëkk bi duñu seetaan suñu mbokk jullit walla keneen croyant gëm am jafe-jafe ni koy seetaan lépp lu ñu yàlla jox lu ndaw ndaw war nañ ko séddu ak ñoom si loolu balaa may wa continuer si wax bi rek euh, xale bi incha allah rabbi euh, ma faa jëloon note bëgg naa partir de semaine prochaine am naa sama benn xarit bu xam ne c'est un professeur agrégé en dermatologue naa yóbbu xale bi jël ko en charge à partir de sooba yàlla bu yàlla defee jàmm lundi même bu yaayee mën a ñëw Dakar sax man ma jël en charge ñu mun a traité xale bi foofu dimanche naa commencé démarche bi euh, li may waxti mooy euh, vraiment sameero xaw na daw tuuti parce que suñu doom la euh, yaakaar naa ni lii mooy politique bu ñu waxee politique du nekk fi di wax rek politique mooy leen mooy jeexaat la mooy defar sa gox ñun mooñ tax a jóg ñun dañu doon bëgg a doon ay nit yu xam ne dañuy jege askan bi xool askan bi ni ñu dundee si loolu yàlla dafa def di sant bu baax a baax kii nga xam ne tey ñoom ñoo waral tey euh, daj bi tey avant loolu di sant aussi sama délégation yëpp euh, président des femmes président des jeunes sama conseil yëpp mi ngi fii Cheikh Adama sama conseil yëpp bu ma tuddee Adama sama conseil ñëpp mi ngi fi toog ñi nga xam ne saa yu ma jógee rek bu ma anavant rek ñëpp topp sama ginnaaw euh, di leen sant bu baax di leen gërëm di leen ko man képp koo xam Habib ñaar lu ko xam mooy si wàllu politique sociale développement a jeg askan bi si loolu dama décidé woon yàlla def moo tax ma ne macha allah euh, kër gi fii nii gox bi am na ñaan moo tax ma décidé décidé may leen benn consultation bu xam ne ñaari fan mosuma ko def biir Thiès may leen consultation samedi may leen consultation dimanche consultation bi bi si waxtaan waxtaan naa si sëñ bi ma ne ko garab yëpp ñëw na même verre yu xam ne maanaam ñii nga xam ne dañu am problème bët fexe naa ba yàlla def na jàmm verre yëpp jóge na bitim réew ñëw na mu ngi sama bureau ñetti téeméeri ñeenti téeméer verre ñëw na mu ngi fii sama bët mu ngi sama bureau gannaaw bu saw yàlla dina ñëw si wàllu tamit jigéen ñi tamit dinañ def consultation en gynécologie comme noonu nga xam ne yàgg yàgg naa yaakaar musoon nañ ko def si wàllu école jaxaaw defoon nañ ko ba yàlla def si jàmm am nañu jigéen ñu xam ne maanaam si si consultation ñu gisee seen jàngoro yaakaar naa ne du ñàkk du am ñu fi toog gis nañu ko man aussi damay def si damay am suivi am na ñenn xam ne wallaahi yàlla rek ma mu tiim bu leen consulté woon rek si musiba day am ba mu actuellement ba fi may toll nii maa leen jël en charge à la clinique parce que bu ñu ko deful baaxul si ñoom parce que gis nañu aussi ay ay ay cas yu xam ne yu xaw a ne tuuti moo tax man li may wax mooy yan laa am donc man fépp fu xam ne fu ma nekk rek li may dox yëpp bu suba si ngoon rek mooy laks laks nu may def rek mooy sama jigéen ñi sama jeune yi si gis seen bopp si loolu li may wax mooy consultation bi dina am ñetti fànn lañu koy defee dina am consultation dina benn boo xam ne affaire bët la yëpp benn bi si wàllu généalogie benn bi si wàllu donc médecins yi dinañ fi am ñaari fan incha allah rabi fii kër sama ji képp ku am jàngoro dañ leen ñaan na nga ñëw consulté wu yëpp c'est gratuit jël naak à charge samay xarit nañ samay am di jàmman maa leen jëri indi leen fii li may waxti mooy euh, yaakaar naa ne ñun ñëpp ku nekk xam na suñu féetuwaay ñun duñu nëbbatu dañuy wax ne dëgg ñun on est un mouvement indépendant mais allié du président public Macky Sall la ñuy jàppale. moom la ñuy jàppale moom ñu àndal nekkuñu affaire nag mais dañu am suñu mouvement bopp di askan nekk si ginnaaw di ko jàppale si wàllu social si wàllu suñ gox bi pour suñ gox avancé parce que ay doomu Cees nañu si loolu tamit li may wax faral di wax mooy ñun suñu wax dafa dafa dafa niiw jëf nañu xam ñu ngi si wàllu formation jigéen ñi euh, président moo war a wax moo tax mu jox kenn wax li ngi si wàllu formation jeunesse bi si wàllu bourse yi keroog rek maa ngi wax moo tax bi ma demee université Cheikh Anta gis naa fa lu ma téeméer étudiant xam ne ma kër ma alaaj nañ dëkk dama gis condition ñu nekkee condition yu xaw kéemaane man indi sama loxo def naa ko dakaar def naa ko Saint-Louis def naa ko Bambey def naa ko Ziguinchor man Thiès ma ma ñor du ma toog nekk dans de bonne situation bàyyi sama ay mbokku jullit doomu Thiès nekk sans situation xam c'est pas normal c'est pas sérieux yàlla dafa def nag ñun duñu waxtu dañuy jëf si loolu Euh, yaakaar naa ni président de mutuelle de santé mu ngi ni toog naa njëkk de benn geste naa leen may téeméeru carnet mutuelle de santé nu ngi ko noté bu nekk dinañ la jël at at boo xam ne li nga faju doo man nag côté boobu laay remercier le président Macky parce que tey bu dul woon Macky Sall dina metti si man macha allah waaw kooku moom jël na engagement le président de mutuelle yaa ngi ni toog à partir de suba na nga recensé cent carnet nga indil ma ko ni chargé ko man ma ni jox ko sama jigéen ñi moom laa leen nuyoo. beneen bi aussi tamit si wàllu formation yi tamit bëgg naa ngeen jege sama président des femmes mu ngi ni toog euh, soxna Seydou Bouñe mu ngi ni toog mooy président des femmes macha allah tamit ngeen jege ko bu baax a baax si wàllu formation yi comme noonu xamee si jigéen ñi. ni ngi si wàllu formation yu bëri man li may wax rek mooy ñun dañu war a def nekk autonome li may faral di wax mooy ku si nekk fii sa maire bopp nga. donc nit da war a gëm sa bopp gëm sa gox ñun dañu bëgg doon euh, nit bu xam ne un leader politique bu xam ne day jege askan bi day ndàmbeeku askan bi xool askan bi lu mu wax ñëpp xam nañu nag wax nañu suñu jëf suñu maanaam suñu bëbët mooy dañu bëgg a nekk candidat de la mairie de la zone nord mooy lan d'abord dañu bëgg a jege askan bi yàgg naa ko wax dama koy waxaat ñun dañu dog bëgg a doon maire bu xam ne du fi nekk di dajale ay suuf dañu bëgg a doon maire bu xam ne tey salaire am ko laal salaire bi fu mu jëm si wàllu social la jëm loolu ñoom moom noté leen ko saa yi fu may dem moom lay wax bëgg naa ñit yaakaar naa ne presse baa ngi ni tiim ëllëg bu ma defee bu ma waxul nii ne Abdou Niang li nga wax lu waxeet la man du wax di dellu ginnaaw en tout bu baax maa ngi sant baax di leen gërëm kontaan naa si mobilisation bi baax a baax di wax ne que incha allah rabbi maa ngi seen ginnaaw bu soobee yàlla yépp lu ma mun def rek naa si taxaw baax jàppale leen wala saam jërëjëf merci